chers internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax dal leen ak jàmm ci xibaar yi lu gën a fës. Euh, tey jii tey nag yem ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum août atum 2024 euh, ñu doon ko nag ak euh, coow li nga xam ne nag ma ngay wéy diggante Cheikh Tidiane Dieye ak ki nga xamante ni nag moo di Cheikh Dieng waa cellule de communication bu bànqaas bi nga xamante ni nag ñoo yor lépp lu jëm ci wàllum assenissement ñoom nag daal nañu fësal ab communiqué daad nañ ci wedd nag ba set wecc kàddu yi nga xamante ni nag ancien directeur bu ONAS di Cheikh Dieng euh, daal dina koy yëkkati euh, moom Cheikh Dieng moomee sax euh, doon amal ab conférence de presse niki aljuma bi ñu daal di génn doon addu ci coowal oto bay nga xamante nag moo daal di jur coow mu ne nag bile oto mi ngi ko daal di jot gannaaw ab entreprise boo xam ne nag da doon liggéey ñoom ñel nag projet collecte an fan te ONAS nag daal di koy yor tax nag mu daal di koy immatriculé ci turam li ni mel nag daanaka ci projet projet boobee euh, la daal di euh, euh, jógee ci communiqué nag bi nga xamante ni ñoom waa ONAS daan nañu ko fësal ñu ne nag projet Hann Fann boobee daanaka boy di xool ci ya amul benn cëslaay mbaa sax amul lenn nag loo xam ne moo ci war am ngir nag jox ab oto ki nga xamante nag moo di directeur général ba tax na nag ñoom indi nañ ci nag ay leeral yu yaatoo yaatu ci ab bataaxal boo xamante nag ni ki démb daal nañu ko fësal waaye nag mu mel ni nag nag euh, ñoom indeeguñu nag benn leeral jëm ci tuuma yi nga xamante nag moom Cheikh Dieng yëkkati na ko teg ko ci ndoddu Cheikh Tidiane euh, Dieye jëm rek ci marché par entente directe bi nga xam ni euh, nee na nag moom ministre bi daf ko daal di def jëmale ci ñaar ci ay société ngir nag lu ñeel assainissement bu Sénégal jàpp na ni sax bañ bi nga xamante ni nag moom Cheikh Dieng defoon na ko ci yooyee jamono loole waral nag ba moom Cheikh Tidiane Dieye daal di koy dàkkulu ay kàddu la yoo xamante nag moom yëkkati woon na ko euh, ci ba muy def janno ak way taskatu euh, xabaar yi ñu wax nag ci leneen euh, lu ñeel wàllum xabaar ba tey di accident yi nga xamante nag kon ma ngay wëy di am ndaxit nag semaine bi lu ñu nag wàññi ci ñu ñàkk seen bakkan daanaka bëri na ba yegg ci lool waaye accident bile di bi nga xam ne nag moo amoon ca Koumpentoum daanaka ña ñàkk seen bakkan lim nga daal na yokk ndax nag jóge na daal ci euh, juróom ñaar dem ci juróom ñett euh, kon daal ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen euh, bakkan lu toll nag ci juróom-ñett également ci ay doomu aadama am ci nag ay gaañu gaañu yu mette métti jamono ji nag ñi ngi def nag li wax ci ñoom ngir nag faj leen chauffeur bi nga xamante nag moo nekkoon chauffeur bis ba te jotoon daal di daw jàppale ni nag jamono ji moom teg nañu ko loxo ndax it ab chauffeur malien la sax bu ñu sukkandikoo ci ay xabaar euh, bu ñu sukkandikoo ba tey nag ci élément yi nga xamante nag moo tukkee euh, ci enquête bi moom nag euh, dafa doon jéem a dépassé beneen ci ab oto wala nag ba jiye ba daal di am lu ci mënti doon nag moom yoon daal dina koy teg loxo ba tey wàllum accident yi ak kon li nga xam ne nag mooy réaction bi bawoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem ak dikk di El Hadj Malick Ndiaye moom nag daal dinay ñaawlu lu jëm ci accident yi nga xamante nag daanaka semaine bi dafa dafa daal di euh, yokku ci kàddu nag yi nga xamante ni yëkkati na ko euh, nee nañ nag dinañ gën a dolli lu ñal nag sanction yi maanaam daan euh, yi nga xamante ni nag dinañ ko def ci yenn ci ay chauffeur bokk na ci nag emprisonnement di sax kaso wala daal di jël li nga xamante nag moo di ay permis de conduire moom loole nag la daal di xamle yamu ca ndax nag sàkku na ngir kon lu jëm nag ci sàmmoon teg norme technique d'exploitation yu oto yi ngir kon ñu gën cee bàyyi xel mais également également wàllum forma wàllum formation euh, ci euh, li ni euh, mel loolee nag bokk na ci bëgg-bëggam nee na nag moom El Malick Ndiaye daal fu mu ne lii nag seen taxawaay mooy xool rek nees def ba ñu daal di gën a dëgëral sanction yi loolee wara sax ba niki tey kon jàppale ne ab séminaire di ab daje waxtaan boo xamante ni nag ñu ngi koy amal foofee ca jam Diamniadio liñ ci nag jublu mooy xool rek nañuy daal di dajale lu ñeel xalaat yi bu ko defee itam ñu fexe rek ba daal di koy euh, jëgmal euh, ngir nag accident yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku euh, ci kaw tali bi nag mu mën a daal di wàññeeku wàllum xibaar ñu wax nag ci ki nga xamante nag moo di njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar fay moom nag jàppale ne ni ki tey ñu ngi koy xaar foofee nga xamante nag moo di ca Touba. ab euh, euh, visite boo xamante nag dina ko amal ci euh, wetu daal ki nga xamante ni nii mooy xalif général des Mourides di voilà Serigne Mountakha Mbacké loolee jëm nag ci wàccaayu Grand Magal de Touba bi nga xamante nag dinañ ko amal ajjuma ñax fukki fan ak ñett ci weeru août laata ñëwup njiitu réew mi sax foofe daanaka lépp loo xam ne ñeel na ay matuwaay ñu koy jël nag ci Touba bu ko defee nag bile visite mën a am nag ci rek nañu ko daal di euh, bëggee euh, xam nga ni nag màggal tubaa boobee nag ay junni junni ci ay doomu aadama dañuy jóge fu ne ngir ñëw nag daal di koy euh, teewee bile événement nag ren nar a lu jëm si cent trentième édition di téeméer ak fanweer ci édition boo xamante nag moo ñeel màggal Tuuba wàllum xibaar ba tey chers internautes ki nga xamante nag moo di Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop Euh, ñoom nag waa sûreté urbaine bu Dakar daal nañ leen convoqué niki tey euh, ñoom nag di jiital groupe de presse bi leen di E-Media mbaa sax ñu bokk ci njiit ya euh, ki leen plainte nag di Abdoulaye Sylla di njiital Ecotra moom Abdoulaye silla nag mu daal di leen plainte gannaaw ab koppar boo xamante nag dugaloon na ko fa ndax it dafa bokk nag ci partenaire yu groupe boobee lim ci dugaloon nag tollu ci deux milliards de francs CFA nee na nag li ko daal di jaaxal mooy lenn lenn ci koppar ah, mbaa sax xaalis bi kon nañu ko nag ah, doxalee ah, ba tey nag dafa am loo xam ne daal leerul ci boppam waral nag ba mu daal di leen plainte te it la mu ci dolli nag nee na lu jëm ci gestion groupe de presse bi moom nag dañ ko cee daal di écarté mu mel ne nag am na ab lees waxul boo xamante ne nag moom Abdoulaye Sylla tiital na ko ba tax nag mu soxla ci ay explication mu daal di plant nag ñaar ñi di Alassane Samba Diop ak Mamadou Ibra Kane ñoom ñaar ñooñu nag yi euh, ci euh, waxtu bi nga xamante nag kon Euh, ñàkkul ni sax euh, ñi ngi euh, fas yéene nekk ci yoon ngir nag dem mbuyu boobee convocation nga xamante nag def nañ ko ci seen ndoddu tax nag loom ñu ci daal di waxoon nee nañ nag li ni mel ab sabotage la wala sax kon fexe ba bëgg tilimal lu jëm nag seen wàllum gestion mbaa sax lu ñel seen tour lu ci mënti am nag dinañ ci dikkaat suñu yeneen jotaay xibaar ngi xool ana rek fan la war na mujjee gëtam ak bi lépp coow.